ayca mi ngi noonu abi cher internet maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di leen wax ne yegg si leen ak jàmm fii nga xam ne ni mooy seen euh, chaîne bi nga xam ne seen chaîne préférée la muy Dental TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal alors euh, bienvenue dans votre émission Dakar euh, Dental Actu mu nekk émission boo xam ne ça parle de l' li nga xam ne jot naa xew ci réew mi waaye li nga xam ne jot naa xew ci jour bi ñu daal di koy faram-fàccee daal di ciy waxtaan lu ama am solo daal di dugg ci waxtaan bi man ngi lay fay Momo. baa yaa ngi ci jàmm di la jox sa bi maa ngi lay jaajëf. baa te nga maa bañ a dugal. <laughs> <laughs> non dama patriote nag. ah moom maa ngi nii Sénégal laa àndal. élément neutre bi quoi. neutre kese. waaw waaw ma bàyyi la nga daal di nuyu ami si internet. ayca maa ngi nuyu bu baax a baax moo ko internet Dental TV tey nag yéen a ci seen émission bi nga xamante ni mooy Dental Actu ah tey nag saa su nekk ñu fas yéene ànd ak yéen ànd ci sama góor sama xarit. moom moo ah la gentleman ki nga xamante ni bu waxee mu neex bu jëfee mu neex. waaw kàlla kenn du yàlla balaa jóg. <laughs> en tout loolu laa xam ci yow macha allah sama xarit sama mag. Eh. nga faram fàccee li nga moo xew ci jamono ak actualité yi nga xamante ni moo lëmbee Sénégal. ayca euh, tarkaala loolu dama ci euh, am mbégte bu baax a baax a baax ndax nee naa leen euh, ne loxoy Kajoor day weesaloo. waaw ah, te feccum liir bu neexee day jaati ci waggee loolu la olof Njaay ba tax na tarkaala dañuy njëkkee li nga xam ne ni tey moom mooy euh, méga bi nga xam ne kii di Ousmane Sonko nga xam ne moom mooy Dakar Arena fële ca Diamniadio mu nekkoon méta méga meeting boo xam ne nekk na méga bu extraordinaire parce que dafa woote ne euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi muy euh, ministre yeeg ñi nga xam ne dañ ci am ay poste mu nga xam ne ñoom ñooy patriote yi mu sas leen nekk ñaar téeméer <laughs> Ahmed Aïdara nee na <laughs> woote Mega Médine ba pare fay fii la am. <laughs> ba ba ba pare. Uh-huh. mu daal di wax benn mot bu am solo. Mm-hmm. muy lan euh, ban ban moo la jëlee sax ci benn olof daal la wax. mais uh-huh. xam nga Ahmed Aïdara moom dafa neex. Mm-hmm. mais quand même na ci li nga xamante ne mooy euh, dugg paas man laa la ko mm-hmm. ah, dugg paas joxe bi dugg. <laughs>

man dama gis ba gis euh, ñi nga xam ne ni ñoom ñooy euh, waa Pastefu handicapé yi mhm. ñi nga xam ne ñoom tamit ñu ngi def seen délégation ñoom ñëpp nekk ci kanam mhm. daal di toog euh, fas yéene jàkkaarloog seen premier ministre Jomaay mhm. mooy Basiru Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay ok ba tax na méga meeting bi feesoon na dell dell dell dell ah, mais balaa ñu ñëw ci li nga xam ne moom la fa def lan nga jàngatee méga meeting bi waaw moom euh, moo comme ni nga ko waxee méga meeting mu fees dell. Mhm. ay jeunes ay handicapés ay mères sax. ma leen fay mhm. gis. Euh, bu nekk image boo xamante ni tout touchant la mhm. euh, ci li nga xamante ni mooy waa kër yi parce que mhm. comme ni nga koy waxee nit ki la fal démb mhm. ah defe naa ni ñàkk koo fàtte si euh, mu defaat li nga xamante ni mooy Dakar Arena ngi ànd ak moom ñu ngi koy bëgg ba tey parce que foofu na mu mel ah defe naa fees na fees na del del del del dama li ma ci gën a impressionné mooy que ne am na benn malade boo xam ne dañ ko ko andi loolu mu tëdd ci lalu ci lalu hôpitaux yi loolu ñu xëcc ko ba ba ci Sonko andi ko. Mm-hmm. mais est-ce que am na tamit euh, yenn yoo xam ne nii tamit bëgg bëgg rek euh, est-ce mel na noonu. moom moom bëgg doy na waar de moom moom naa la xamal mbëggeel dafa doy waar de bëgg doy na waar de moom moom dafa maanaam mbëggeel dafa doy waar man gis naa ko mais itam gis naa mère boo xamante ni hmm. wax dëgg yàlla moo ko gisee dama jooy non parce que mère dafa daw jëm ci Sonko mais Sonko tamit nekk ko oyof monsieur le ministre hmm. ah tubaarikàlla nekk koo xamante ni bu ko wayaan de oyof non man waaw kay dama lay wax rek xam <laughs> ah, nga ministre bu fi toog ko wayaan ko mais nag bu ñëwee ma jël hmm. waaye nag wayaanu mu ko mais dafa di euh, ku gis neen nee na ngi nii dëgg la macha allah ñu gis neen daw jëm ci Sonko Sonko dama accueillir ko wàcc fi mu nekk mhm. en ce moment boobu da gis stade bi di dëgg la stade bi ñëpp di yuuxu xamante ni si moom mhm. def mhm. ah le ministre ñu ngi lay remercier ci geste boobu dëgg la am na solo <laughs> ñu dugg li nga xam ne ni moom la fa jot a euh, euh, wax euh, comme li nga xam ne nii tey moom mooy méga meeting di ko sababoon ak li ko waral muy élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy le 17 novembre ñu gis ne wax na ci ay ay kàddu mais li ci ëpp importance mooy que ne géwëlu Macky Sall boobu nga xam ne moom mooy. Euh, Farba Ngom mm-hmm. hectares yi mu am fële ca aéroport. ancien aéroport mm-hmm. mais hectares yooyu noonu bari na de. Ah, loolu daal <laughs> dëgg bi daal xanaa ah, xamu ne lu gën a neex mooy doon géwalu président. ay man de bëggoon naa kaa doon. loolu dafa doy waar. man man man xam na moom jaaxal mooy Farba Ngom nan lay tàggee Macky Sall. <laughs> kasa mo problème quoi ba c'est la question que je vous bu bu rogere non kasa non kasa hectare xam nga fi moom Sénégal moom te ma dem dooni kii géwlu Sonko dafa nekk dëkk boo xamante ni moom Sonko bëggee mën da ba la nga def ci allah macha allah maanaam mu nekk li nga xamante comme li ñuy wax borom doole yaa ngi dimbalante kon ñun ci suñu ci loolu la mag bi wax parce que ñi boo fekkee jal boo xamante ni dafa jol ba pare nga koy jalal moom dafa am defe naa ne yàqum sa jàll ah. Mm-hmm, mm-hmm, mais mieux vaut maanaam ci loolu noonu hectares yooyu te jeunesse Sénégal ñu ngi jooy ci ay liggéey. xëy na mm-hmm. président fi muy waxee mooy. hectares yi nga xamante ni xëy na benn nit moom moo ko moom. ah xaw ma fan la jaar ba am ko. waaye ëpp na ci benn nit pour man parce que teraanga àdduna bon teraanga bon euh, àdduna. bët xëy na bët waaye benn hectare wala ñaari hectare ci benn nit moom moo. là c'est trop parce que jeunesse place ay ay ay ay maanaam ay bërëbu liggéeyukaay. Mhm. te nit nga gis nit di ba après di wala muy ci sax comprendre donc mu président ci loolu la fi bëgg mhm. mu ci loolu alors euh, c'est très important parce que euh, wax ci euh, tamit vu que li ne hectare nga est ce que réellement Farba

ay choses yoo xam ne lu ñu war a régler la te bu ñu gisee nit ñi nga xam ne nii tey yor ay hectares yi hectares nit ñi tëdd tey inondation bi nga xam ne moom moo xew ca Bakel euh, mu nekk inondation boobu metti boo xam ne ni fleuve bi euh, dafa fàq dugg ci biir kër yi xam nga mu nekk loo xam ne lu tiis la nit ñi nekk di subir euh, métit boobu noonu tey yow nga téye ay xaalis yu bari bari bari toog si ah toog ci ne neng nengaaram yow ñi nga xam ne ñooy néew di doole dañuy dañuy dee rek mais ñi ngi am moom ñi ngi am ba tey est-ce que loolu noonu waruñu ko fee jëlee euh, fii ci suñu réew bu ñu waxee loolu xëy na itam président loolu la ci maanaam monsieur le ministre autant pour moi. président la rek. président la waaw président la rek. jamaay mooy soo soo ko moo jëm. mën nga président la rek monsieur le président ba tey rek. xam nga mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu métti la ndax ku nekk gis na li xew Bakel métti na lool inondation ay kilifa ay borom kër yoo xamante ni amuñu fuñu fanaan. xëy na ci looloo waral monsieur le président monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. déplacé wu dem ba foofu waaye waaye Bakel nag moomoo. la fa xew. coow bari na de. bari na trop. ah sunu sunu xarit bi nag Bougane Gueye Dany nag. <laughs> mu baax ko nettali de. <laughs> mais est-ce que <laughs> euh, bëgg naa euh, tamit ñu ñu def euh, benn pause ci li nga xam ne ni moom mooy l'arrestation du Bougane. Ah. de Bougane Gueye Dany foofu ca Bakel. man je di dis que est-ce que jaadu na ñu. def ko batam patam bay ko xam nga vu que ne lu ñu li ñu dégg comme information mooy que ne président dafa waroon jàll te it président buy jàll eh, ak koo mëcc doon da nga war a xaar mu jàll. mais président est-ce que ci voie terrestre bi la jaar. parce que am na ñu naan ci voie aérien bi la jaar. ci kaw la jaar mais euh, pour man koo xam ne dafa jaar ci kaw euh, jote wut ak ki nga xam ne moo moo jaar ci suuf. mënoon nañu ko bàyyi rek mu jàll parce que yàqul dara. wax dëgg yàlla euh, Bougane citoyen la mhm. am na euh, vu que aussi ci euh, ci élection yi la bokk mhm. amoon na droit xëy dem ci dëkk bu ko neex ngir mhm. defi campagne am waaye comme ni ñu wax buur moom waaw xama tamit buur aussi buur la te takk der yi macha allah ñoom ñoo baaree yoon bi donc je vis que man ci sama xalaat bu gàtt damaa gisoon ni Bougane dafa waroon xaar beneen jour mu soogaa dem parce que monsieur le président ku ne xam na man gëw ci la jaar ci kaw la jaar mooy président mhm. te Kaolack mhm. te dem na ay dëkk mhm. na ba jege sax Mali xam nga ay ay reportage man amoon naa ci ay donc mu nekk euh, cinq jours yoo xamante ni wala trois jours yoo xamante ni monsieur le président def na benn tournée bu am solo waaw je mais nag Bougane Gueye tamit moo toj boppam moo toj boppam ah euh, selon tey yow sa sa jàngat loolu nga ko loolu nga ko jàppee mais étant citoyen tey mën nga am droit

ñi nga xam ne ni tey tiis bi dal na leen muy gën a ndox mi inondation bi nga xam ne ni tey métti na lool lool lool lool ba fu ba fu métti yam mais est-ce que jar nañu koy pamti pamte yi noonu caxat-caxatee ko ba xotti chemise am xaw ma je sais pas xotti t-shirt am ah mais bu gaan nga itam mu si biir foofu bu génne di ko xam nga mu jógee fële ba mu jógee fële ba mu ñëwee toog ñu ngi toog doon waxtaan ay aisément xam nga di wax li fa jëlé di rétan di kaf yo do mais fii nii est ce que bu ñëwaatee tok dina wax yaakaaru wax dina fa jëlé wala boog dina jël ay repos mhm. jour go xamante dinañ ko damp notanti ko ñu wara mëna tok mhm. géré mhm. wax manam li nga xamante ne ko manam ci loolu la fa dacc mais man monsieur vu que ne loolu aussi dañuy bayyi internet ci euh, dental tv daal di ci joxe sen participation ci commentaire yi mu nekk li nga xamante ne ndax bu gandé dafa waron xaar benen jour mu dem wala boobu mënoon na dem ci ndigalu euh, maanaam fekk ji ki nga xamante ni mooy monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mhm. fi nga xamante ni foofu la nekk muy tournée bi ñu doon def benn mhm. Bakel fépp fépp koo xamante ni euh, monsieur le président nekkoon na fa mhm. mu nekk loo xamante ni lu doy doy waar la xëy na aussi dafa bëggoon jaar ci tànk Sonko yi Sonko daj na fi loo xamante ni moom itam kenn du ko nettali xëy na moom aussi politique lay def ah. mais dafa am benn euh, wax bu Sonko waxoon mu ne ko xoqatal ak jaay doole jeex na ci réew avant muy toog loolu la ëppoon li mu doon wax parce que am na benn euh, wax boo xam ne waxoon na ko ci Bougane Gueye Dany ne ko carrément Bougane Gueye mi ngi doon mi ngi doon am lu mu bëggoon def ñu baare ko boobu jamonoy mag saal la mhm. mais pour man moom bu toogee si jamono jii nii li nga xam ne ni waxoon na ko pour man loolu euh, dafa nekk loo xam ne ni day waru ko waru ko appliquer quoi war na ko appliquer mu gën a jaay doole ci réew bi dafa war a jeex mhm. citoyen bu nekk moom sa bopp am droit def li la neex. parce que moom ba muy dem ba muy dem foofu noonu fële nga xam ne ni moom mooy euh, foofu ca Bakel demul pour pour pour pour euh, xokkatal président wala demul pour euh, pour diggante mbagg président bien vrai que ne tamit mën nañu wax ne Bougane Gueye dafa ah, sikk. waaw dafa sikk de <laughs> président président tey lay dem moom mu ne moom mu ne de.

<laughs> ak ki nga xam ne ni moom mooy euh, maire de Dakar di euh, Barthélémy Diaz moom aussi tamit dem na rejoindre ki nga xam ne ni moom mooy Bougane Gueye pour taxaw ko soutenir ko euh, tamit aussi tamit ci ci citoyen bu mu doon en tant que sénégalais tamit ci ak yëf yi nga xam ne ni def nañ ko fa même ki nga xam ne ni moom mooy borom Euh, Selima comment Anta Babacar Anta Babacar Ngom tamit moom <laughs> mu ngi ci doon wax mu ngi ci doon yëy yaat bi fi mu toll nii ku nekk euh, yaa ngi ci doon yëy yaat bi ci euh, opposition bi pour mën a faire face ak ki nga xam ne moom mooy waa république ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ku nekk ci yëy yaat ak élection yi nga xam ne ni moom nañu dëgmal muy leen seen

Euh, Sonko mhm. moom mi ngi woon Arena Diomaye mhm. mi ngi woon mhm. def ay tournée la bi kii nekkoon Bougane Gueye Dany mais ci yoonu kii la ci yoonu monsieur le président la Sonko yoonam nekk ci du tax loolu ah mais xam nga tey euh, bu ñu boo nekkee ci ci li nga parti au pouvoir lépp lu ñu wax dana ci ñambaas waaw parti au pouvoir bi boo ci nekkee. lépp ñu wax da la ciy dugal. parce que xam nga xam nga xam nga xam euh, nga euh, Sonko mën nañ ne le président moom mooy premier ministre. mais Sonko moo tax gars xam Diomaye parce que moom moo taxaw élection. Macky Sall ne ko moom mënatul bokk. ci candidat yi mu taxaw ne Diomaye mooy sama candidat loolu moo andi Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko. ayca mi ngi noonu euh, xam nga des fois. am na loo xam ne nii da koy mën am na loo xam ne doo ko mën xëy na waa ji moom daa mën bësam ba tax na affaire bi daal di teppatiku waaw léegi soxna si ne ko kon comme teppatiku na fii ngay yam <laughs> mu ne ko damay am fii. ñaar la waroon def. léegi nag loolu la ñu histoire ba waa ji dóor ko ba muy daal ba mu dee lan nga ci xalaat. moom loolu moom. moom sama xam-xam da cee bariwul mm-hmm. jàngal mooy. Mm-hmm. ah ndaw si daal moo toll. Mm-hmm. ndax ñaar lañu waxante woon mu jox ko benn.

ba jékki-jékki affaire bi déppati ko. mais li fan la fëqee loolu laa bëgg xam fan la yëf yi fëqee. Rama dama tàggatoo ak am na si yàq. ah mais dimbali leen ci bopp maanaam. mais est ce ba mu dee na si waa ji fan la tolloon ba ba ba. fan la tolloon ba ndaw si ba mu dee. na parce que genre mel noonu genre xoli bon yooyu. <laughs> ñàkk egg rek naa bu yeggoon benn mën na ko ban benn. Ah, ma bàyyi la nga tàgg tàggatoo. <laughs> waaw moom mu nekkee maanaam ça fait énormément plaisir ñu ko waxoon ne doy na waar ñu fas yéene tàggoo nga xamante ni ñoo ñu ñoo ñu jàppale ba ñu agsi fii ah. ma dëkk a baax a baax di leen benn xarit boo xamante ni macha allah muy Assou. Hmm, Assou Euh, tubaarikàlla sama xarit sama doom day chéri Arona maa ngi leen bu baax a baax Jibi Diop Sanika maa ngi leen baax baax di ziar suñu waa kër képp koo xamante ni yaa ngi bëgg Rama Rasoulaye maa ngi lay big up di la jox rendez-vous prochainement incha allah Mouhamed Ndiaye maa ngi leen di nuyu di la big euh, <laughs> euh, garaaw.